barhamu baun waraun alifun thumma ha mimun mu jël faydu tiijaan jox ñu ñuy li ñuy def ci àdduna laa wax ma xam ko ñemewuma leen a teg sama xel xalaatu ko sama xel xalaatu ko loolu moo tax ma ñëw fi ma am loo xam ne nii moo fa nekk maanaam di njëslaay li boroom kër ak soxna boroom kër ba am ñu di ko wax bàyyi kon yéen li ngeen yor te kenn umpalewu ko kenn na tablewu ko ñu naan ko bàyyi kon xam ngeen ne am ngeen lu ngeen yor ndax boo ne bàyyi ñes ñëpp xam nañ ko mu jëm ñëpp xam nañ kon sëriñ bi ñoo ngi leen di delloo seen wàccuwaay di leen ziar te di ñaan lii leen dajale ñu xam ne lislaam dong la kese kese leneen rox ji ngeen ñaanal réew mi ndax Sénégal soxla na ndam Sénégal soxla na dal Sénégal soxla na nawet bu naat senegaal soxla na ay kilifaam mucc te man day bir na ma ne bu ngeen toogee ñaan yàlla nu loolu moom xam naa ko xam naa ko bu baax ndax yoon wi duma ci gan dama ci am ay wëllëre am ci ay xarit yoo xam ne nii dama tukkeendoo ak ñoom nekkandoo ci biti ak ñoom Cheikh Baba bu daan ñëw Sergi gàmm buñ fa mas a dem naa fa ni ñu daan jooyee laay jooyee ndax alxuraan bañ fa daan jàng sikkur lay bañ fa daan def daf doon dugg sama xol te loolu Ibrahima Diagne ñu gën koo xam ci Luc moom moo taxoon ma doon ko def ndax soxnaam. soxnaam dafa bokkoon ak sama soxna ñuy jàng tuur moo tax yoon wi am naa ci cër am naa ci ay wóllëre am naa ci ñun ñoo xam ne ni su ma jaaxle tàllal leen seeni loxo samay loxo kon maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp euh, Cheikh Tidiane mënuñu aussi ñëw fii te ñu xam ne ndaje mi ci ñi ko ponkal nga ndax ponk yi tax ñu taxaw tey ngay imam ratib tàllal nañ la suñuy loxo dénk la aussi li nga xam ne ni moom mooy xéewal te jëm ci réew mi surtout président Macky Sall mi nga xam ne ni moom la yàlla tey dénk réew mi te damay wax ne gaal boo ci duggee ñaanal gaal gi mucc bul ñaan sa muus walla sa walis mucc Sénégal gii ñoo ko bokk Cheikh Khoureyssi Niass yow tamit jox nañ la sa wàccuwaay bu ma leen limee yéen ñaar defe naa ne boole naa ci ñëpp le maire Alioune di sama xarit bu ma ko fekkee fii dinaa ko jox wàccuwaayam dinaa ko jox cërëm ndax Alioune nit bu baax la Alioune nit bu sell la nit ku dëgg la kon Alioune maa ngi lay sant aussi di la gërëm maa ngi delluwaat di jéggulu aussi bu baax a baax a baax a baax ndax wax dëgg yàlla aw woon pour jël fi kàddu waaye ñi mewu ñu ne ma waa bàyyi nekk fii ma génn dem sama yoon loolu moom ñi ma ma woon moo tax ma ñëw ne dinaa indi sama ziar ñëw saafonte ak yéen jéggulu leen aussi ci li ma fi jël ci kàddu jéggulu ci li ma dagg seen protocole ngeen baal ma ko wax dëgg yàlla du woon yéene du woon pas-pas mais xëy na xër bu ma xër ci waa kër bàyyi moo tax ma ñëw ko defee maa ngi leen di sant di leen gërëm jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf barhaamu baun waraun alifun thumma haa miimun mu jël faydu tiijaan jox ñu ñuy naan